lenn ci ay kàddu seede bawoo ci sëriñ Mahmadan Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad jëm ci sëriñ Amsatu Mbacke moom sëriñ Soxay ay xat-xatit amoon na xam na lépp waaye da ngaa toog dëgërloo yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba ak seenu bëgg ak fa sa wajur tegoon tànkam nga teg fa sa tànk ba mu àgg si fii tey ndax sunu wajur ba Cheikh Abdoul Ahad di sa wajur dafa am lu mu waxoon te noonu ngay doxee te boo ko doxee rek jàll ku ma topp ma dem ku ma toppul ma dem foo geesoo gis mbooloo sa gannaaw ginnaaw yaa ngi ci yoon wi dem nag nun ñi nga xam ne nun nga bokkat suñ Tuubaa te nun nangul la cër bii la yàlla jox ànd ca xol bu sedd duñ def dara lu may ñaanal la yàlla ci barkeb Sëriñ Tuubaa nga bañ am men ndog te ak rëkk ndog mi nag du lenn lu may fan wu gudd rek lañ lay ñaan te yaakaar nañ ne suñ Tuubaa dana ko def ci yow ndax bokk nga ci ñi suñ Tuubaa di puukariwoo te nun nattab li wun ndax li dig bëggam ca nga nekk kon nag sëñ bi yàlla na la yàlla taxaw yàlla na la yàlla féete fépp ñi topp ci sa gannaaw ñëpp te bëgg lu baax ñi ciy yëngu muy bokk yi jëleel naa bokk yi ñu fiy fekk waaye taalibe yi nga xam ne fu ñu mën a nekk ci biir addina tey ay ndaw kenn ku ci nekk sa xol jëm na ci suñ tubaa te jax ca takk te xasaay di waral ko loolee am nga ci payug sëñ tubaa